di am mbégte ak kontante bu baax di dellu siwaat ak yéen ci seen émission firi burdu euh, macha allah di sant yàlla bu baax a baax ci xéewal gim ñu xéewale euh, ñu fekkewaat ko waaye xéewal gim ñu xéewale ñu koy seddoo ak yéen euh, incha allah di jéggalu bu baax boroom xam-xam yi ñuy seetaan ak di ñu déglu di ñaan yàlla mbooleem luñ ci juum yàlla nañu ko yàlla jéggal te tuyaaba jiñ ciy wut yàlla nañ ko am te njëriñ li yàlla matale ci ñëpp di ñaan yow mu ñu seetaan bul fàttee abonné euh, bul fàttee bët si itam cloche de notification bi ngir vidéo buñ defati rek mu nga yëg ko bul fàtte bës aussi yow mi seetaan bouton j'aime bi ngir vidéo bi gën a tasaaroo kon bu ko defee rek tey dañuy ñëw ci ñeente euh, juróomeelu bunt bi bunt juróomeel bi euh, Busayri mi ngi wax ci miracle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mujizaat yi Euh, miracle mooy loo xam ne xar baax la ko olof di wax euh, euh, mooy karaama ci yonent ci waliyu waaye bu dee ci yonent mujisaat mujisa lañ koy tuddee pluriel ba jamoo bi mooy mujisaat nga xam ne loo xam ne bu ko defee day lottuloo ñëpp ki ko doon weddi day noppi dootul amati benn lay bu mu teg ci kanamam bu ko waliyu defee ñu tuddee ko karaama yàlla ko ko teralee bu ko yéefar defee mu tudd istidraaj mooy loo xam ne yàlla daf ko koy naxee rek mu foog ne mi ngi ci dara fekk nekkul ci dara comme dafa dëgër bopp rëy a gëm yàlla moo tax yàlla di ko di jëflanteek moom noonu euh, ni ki noonu tamit euh, euh, avant ñi yónni yonent bi ab yonent boo xam ne avant ñi koy yónni yim doon def ay irhasaat lañ koy tuddee ders bi kon loolu lay wax incha allah buntu bu tey bi mu ne at ñëw na al ashjaaru garab yi li daawatihi saajidatan di aji sujjoot li daawatihi ñel wooteem ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon ay nit ñu bari gëmuñu ko waaye liñ koy ñàkk-ñàkk gëm yi nga xam ne sax amuñu xel nga xam ne ñoom xëy na ahkaamu takaalif yi ahkaamu taklif yi ñoom euh, intéressé wu leen mooy yi ñuy togg doom togg doom aadama di ko ko teg ci ay jaamu yàlla ci ay farataaki ci naafila ñoom intéressé woon waaye teewul gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag ci ay miracle la bokk ndax wax na ne am na benn doj bu nekk màkk boo xam ne dépp ñi yónni ma saa bu ma ko rombee dana dana ma nuyu seddal ma sama yonent kon kooku moo gisa la ci moom mu yonent sallallahu alayhi wa la bu sayro wax fii mu ne kon euh, arab yoobe benn kaw kaw moo moom la yonent bi sallallahu alayhi gisoon yéene ko yiw daal di koy woo ci diine ndax koy woo ci diine rek koy woo ci lu baax rek yéene nga ko yiw euh, ndax yéen bi salaa salaam woote gi mu doon woote yëpp benn intérêt nekku ci bëgg nit ñi rek yërëm leen yéene leen yiw moo tax mu woo ko nag ci diine ji mu ne ko ah bu la garab boo boo woowee garab gee mu dox fekk si la fi nga nekk de euh, ma gëm la bu la garab gee gëmee daal ma gëm la yéen bi salaa salaam daa ne garab gi ñëwal garab gi daal di dox ba egsi ci moom daal di toroxlu ci kanamam daa di seede euh, ak yonentam rek arab yi daal di gëm ah loo ci mën a teg lu dul leneen lottu na loolu moo tax mu tudd mojisa moo la bu say wax jaat ñëw na al ashjaaru garab yi saajidatan di aji toroxlu li yi ngir wooteem ba moom yonent bi sa alayhi wasallam tamshi muy dox ñuy dox ñoo dégg muy dox moom garab ga ilayhi jëm ci yonent bi ala saaqin ci tronc ci peer la ko olof di wax mooy peeru garab xam nga ñun dañoo am ay ndëggu yoo xam ne moom la ñuy dëggee euh, wala kii euh, nit doomu aadama waaye bu dee garab moom euh, peer rek la am tronc kese la am waaye amul ndëggu bilaa moo tax mu ne bilaa xadami ci lu dul ndëggu garab ga di dox comme nit koo xam ne sa kilifa moo la woo na ngay doxee jëm ca moom yàkkamtee xam lu mu lay doyee bu dee ndigal la nga gaaw def ko bu dee tere la nga gaaw bàyyi ko garab ga noonu la doon doxee dox bu jub boo xam ne dana ko wax dox bu jub boo xam ne nekkul di jàng-jangi di jëm ndeyjoor wala di jëm càmmooñ wala muy euh, dégg nga yëngu waaye dox bu jub la ba fam aw sax da ko tracé tracé bu juba jub moo tax mu nekk ka annama satara dafa mel ni ki rëdd na satran aw rëdd li maa loo xam ne katabat bind na ko furuuha ay banqaasam banqaas ya ñoo doon direeku ci suuf di ñëw euh, maanaam fañ doon direeku euh, boo koy misaal Euh, dafa mel ni ay bind yu rafet yoo xam ne aji bind bind na ko min ba xati ci bind yu yéeme dégg nga fil liqami ca yoon wam aw moom garab ga mu ne mislal loolu kon kéemnaan kéem kéemaan la ci ay kéemtaanam moom yoon bi salaa salaam euh, yemul foofu ndax moom euh, ba mu àndeek ba mu nekkee ci yoonu commerce wa te Xadija boole woon ko jaamu bu ñu wax maysara bokk na ci màndarga yam gis saa bu soxlaa boppam rek day woo ay garab ñu ñëw Euh, mu def li muy def après mu dem sallallahu alayhi wa sallam ka annama satra dégg nga kon mislal xamaamati comme niir wa tamit bokk na ci ay mojisaatam anna saara fu mu dox rek dégg nga euh, saa iratun muy aji dox jëm fa moom moom niir wa nga xam ne fu mu dox rek mu jëm fa loolu nag irhaas lañ koy tuddee ndax avant muy avant muy nekk yonent la woon ndax ñaari yoon lañ ko mës a gis euh, mu mu ñëwal ko bokk na ci commerce ba mu demoon Cham ngir commerciali euh, Situna Khadija euh, ci lañ ko gisee woon waaye nag biñ ko yónnee gisatuñ euh, niir woowu di am kon irhaas la taqihi mu koy feger xarra watisin tàngooru naaj xami bay aji tàng lil hajiri ci digg njolloor ñu ne mu koy fegal naaj bu tàng bi xam nga foofu dafa tàng désert bi fu ñu dëkkee noonu ay béréb yu tàng la mu koy fegal nag tàngoor wa sallallahu alayhi wa sallam kon ko bokk bokk na ci ay kéemtaanam nee na aqsamtu géñ naa euh, man bu sayri bil xamari ci boroom weer wi almunshaqi weer wuñ xar wa maanaam yéen sallallahu alayhi xar na weer wi ñaari yoon ci dundam nee nañ euh, muy kéemaan euh, goo xam ne def na ko gannaaw ba nga xamee ne dégg nga béréb ba laajoon na ko ca yéefar ya nuñ doxalee woon ak moom mu xar weer wi inna lahu aji nekk la ñeel ko dégg nga waat naa ci borom weer wi ne ñeel na ko min qalbi ci xolom nisbatan ak niroo maanaam xar bi mu weer xar weer wi ak xar bi mu xar xolom te am na ñu ne ñaari yoon lañ ko xar am ñu ne ñeenti yoon am na ñu ne juróomi yoon euh, ala kulli xaal bu dee ñu ne ñeenti yoon moom mooy ba mu nekkee ci xalimatu saadiya ba mu amee fukki at ak bañ ko yónnee ak bañ ko rañaane yóbbu ko suñ borom ñu ne ñeenti yoon yooyu lañ ko lañ ko xar boobu moom siiw na am na ñu wax leneen nag nee na nag ma waat mabruratal xasami waat goo xam ne euh, mbir mu mbir mu muy euh, waat buñ setal maanaam waat boo xam ne bu dëggu la la bëgg wax ne kon niroo na xar gim xar weer wi te mujisa la ñaari yoon ak xar giñ xaroon dënn bi euh, génne mboolem lu ci ciru doomu aadama ci rëy ci ngistal ak ci yooyu nga xam ne ab yonent maasum la yooyu waru koo am ñu raxas ko ba mu set wama la nga xam ne xawaa laq na ko alxaaru xuntuma min xayrin ci euh, yiw wa min karami ak ci teraanga te xayru yiw yi mu namm ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, teraanga ji mu namm ci euh, saydi abou bakarin sadiq wala boog tedd nga gi mu namm ci saydi abou bakarin sadiq karam mooy sharaf nee na lépp la lam làq wa kullu tarfin te bépp bët bépp bët minal kufaari ci yéefar yi ami aji gumbala anhu ba gisul ba gisuñ leen leen ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla jox na ko ndigal mu gàddaay te yéefar yi defoon seeni réunion ca daaru wa ba d'accordoon ci ne giir gu nekk dañuy jël ña fa gën a am doole ak xale yu góor ya nga xam ne dañ koy sexatoo rey ko nga xam ne waa ba banu hashim duñ mën a topp kenn ne yaa ko rey ndax ñoom ñëpp ñoo ko reyandoo duñ mën lu dul jox leen diya rek euh, nga xam ne mooy amande bi ñuy teg koo xam ne rey na nit euh, mu daal di jeex bañ complot fekk yàlla jox na ko ndigal Euh, ba wàcce suratu yaasin ci moom mu jàng ko tëfli ko ci suuf daal di koy suy seen kaala yi maanaam daf koo jàng tëfli ko ci suuf lan moo tax euh, yàlla waxu ko rek mu jàng ko noonu tëfli ko ci ñoom waaye da koo tëfli ci suuf suy suy leen ko kon lépp loo xam ne yaa ngi koy jëriñoo euh, tam ànd ak alquran barkeb alquran ba moo koy yóbbaale waaye du barkeb loola suuf soosu yéen bi salaa salaam afoon daal di leen koy suy ngeen ñu ne képp koo xam ne suuf sa laal na la rek mujjee nga dugg ci lislaam ñam laalul woon nag ci kéefar lañ dee nee na kon ba yéefar yi ñëwee euh, bañ demee ba ci yoon wi ñuy noppalu ci benn xunt boo xam ne mi ngi nekk ci buntu màkka euh, euh, ci ndigalu yàlla suñ borom ndax bu ko neexoon ñuy dox te kenn du leen gis waaye ñu dugg foofa rek pour wane kéemtaanam bañ duggee rek ñu ne ak garab sax na fa dégg jàng jargoñ bi ñëw daal di lënd buntu buntu xunt mi lënd ko ci sens yi rek biñ duggee Euh, niki noonu tamit am petax ñëw daal di fay tàgg ba yéefar yi ñëwee gisuñ ko nee nañ abu jahlin nee na leen ah jargoñ jiide jargoñ giide ak nim réyee nee na jiitu na juddu yonent bi xam ngeen ko nañ dem fii dara nekku fi Seydi Aboubacar nee na kenn ci ñoom bu xooloon suufu suufu dàllam rek daal di leen di gis bu xooloon tuuti rek daal di leen di gis waaw hakaza waaye gisuñ leen ndax yàlla moo leen aar dana ko wax ñu mel ni ñoo xam ne kon yàlla moo gumbaal seen bët ya ba gisuñu leen leen nee na fa sidqu dëgg te mooy yonent bi sallallahu alayhi moom mooy dégg nga ki nga xam ne moo indi moo ñu indil dëgg fil xaari ma ngi ca xuntu ma xuntu nag euh, aw dégg nga ab bën bën la boo xam ne day nekk ci biir ab montagne euh, fa lañ duggoon nag xuntu moo xam ne buñ euh, buñ siiwee la foofu mu ne wa wa siddiqu aji dëggalaakoon ba tam mooy Seydi Abubakar Siddiq nga xam ne lu yonent bi wax rek moo ko dëggal keroog ba mu rañaanee bay ñëw ba ñëw euh, nettali ko yéefar yi bañ dégg ko ñoom ñëpp daane tey de Aboubacar dana ko weddi tey moom li mu wax moom dafa kéemaane Aboubacar dana ko weddi ñu dem wari wëri Aboubacar laaj ko um, dégg nga ne ko ah déglul li sa waa wax mu ne leen bu fekkee moo ko wax rek dëgg la avant ñu koy nettali sax li mu wax ci lañ ko tuddee nag as-Siddiq dëggalaakoon bi nee na lam yarima saxuñ euh, dañuñ ca xunt ma génn génnuñ fa waxum ñoom yéefar yi yaquluna ñu ngi naan maa bil xaari nekkul ci xunt mi min arimi ci kenn kenn nekku fi fi moom kenn nekku fi wa zannu yaakaar zannu yaakaar nañ alxamaama pitax ma wa zannu ñu jortoo al ankabuta dégg nga jargoñ ba dégg nga ne lam tañ euh, lam tañ euh, dégg nga lam tañ suj euh, ràbbul moom jargoñ ga ala xayril bariyat ci kaw gën ji mindeef walam taxu mi dégg nga nenul moom petax ma ala xayril bariyati ci gën ji mbindeef nee na wiqaayatullaahi dégg nga fegum ya euh, dégg nga défense yàlla défense yàlla ak doy na an mudaafatin walis loo xam ne dañ koo tegale minat duruuci ci ay mbubb koŋ wa an aalin ak loo xam ne dafa kawe minal utumi ci ay tata maanaam yàlla kum aar Euh, boo euh, dégg nga moo gën nga sol ay mbub bi yu bari dañ ko daan sol bu ñuy xeex ay mbub bi weñ la nga xam ne bu ñu la dóoree jaasi euh, du dugg niki noonu tamit ci jamono mën nañ koo misaale gilet par bal wala ay tul yoo xam ne yaa ngi koy def ngir aar sa bopp loolu yëpp bu la yàlla aaree jaru ko aajowoo ko mu ne duruwaay ci ay mbubbi koŋ wa an aalin ak yoo xam ne dafa kawe mi ne utumi ci ay tata fañ daan dugg di fa làqatu bu ñuy xeex bu sayru mu ne maa saama nii musumaa togg musumaa teg ak daharu jamono day man dégg nga gotti euh, ak toroxtaane dégg nga maanaam nattu ci ñàkk dépense wala xat-xatu jamono wastajartu ma xettaliku dégg nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illaa wa niltu wastajartu bihi ma xettaliku ci moom illaa wa niltu lu am na dégg nga jiwaaran ak jege wala ak xettali ak ak sàmm minhu bu jógee ci yenn mi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne lam yu dami xeeb kenn du ko xeeb waaw ëpp naa xeeb maanaam gu gu rëy sax walla tamastu musuma sàkku xinat daara yi ni koomu ñaari kër yi koom-koom ci ñaari kër yi am am lu ma doy min yadi yi ci loxoom maanaam ci barkeem rek moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam illa stalam lu dul bu um, am na an nada dégg nga tab min xayri mustalimi Euh, jóge ci gën ci ki nga xam ne mooy aji maye ki gën a tabi ci ñëpp mu ne laa tunkiri ba xeetaliku ci yonent bi salaa salaam nag lu baax la ak gumba ñëw na ñaanloo ko euh, ngir mu gis mu ne ko demal julli ñaar raakaa nga xeetaliku ci man gumba gi daal di def noonu yàlla daal di faj aajoom mu daal di gis kon xeetaliku ci yonent bi salaa salaam bi muy dund ak bi muy dee yëpp baax na moo ne sama dund yiw la ci yéen sama dee yiw la ci yéen kon nag loolu day tegtale ne mën ngaa xeetale ko ci moom saa su nekk euh, yàlla faj sa aajo comme moom la yàlla jox te moom mooy seddale ah yàlla mooy joxe waaye yonent bi mooy séddale boo ko fi romboo nag di wuti euh, bëgg a def direct ak yàlla du sotti il faut nga jaar ci moom ana minallaahi wal muminuuna min nii man ci yàlla laa jóge waaye euh, way gëm yi ci man lañ jóge laa tunkiri bul weddi al waxyu waxyu min ruyaahu ci géntam moom géntam wi la gént ak ak yonent moom wi la ndax inna aji nekk la ñeel ko xalban xol boo xam ne isa naamati bu nelawee al aynaani ñaari bët ya lam yenami du nelaw donte xolam euh, maanaam ñaari bët yi mën na di nelaw waaye moom xolam du nelaw wa zaaka loolu xiina buluuxin euh, ci ak jotam la min nubuwatihi ci ak yonentam maanaam ba mu jotee yonent ga dégg nga moom yonent bi salaa salaam lu jiitu muy jot yonent ci ay gént la ko daan feeñu waaw juróom benn weer ba mu desee mu jot yonent gi ci la commencé nag di gént yàlla di ko wan ay yëf euh, kon falay sa yunkaru fu ko weddi deful weddi fii ci moom xaalu muxtalimi dégg nga ci euh, géntam moom yéen bi salaa salaam kenn du ko kenn du ko weddi moo tax mu ne kon euh, gént goo xam ne gu baax la juróom benni xaaj la ak ñeent fukk maanaam ñeent fukk ak juróom xaaj la ci ay ci ay xaaj mi ci ak nubuwa boo géntee gént gu baax am nga lool ci ak nubuwa ndax moom juróom benni weer ndax Euh, dégg nga juróom benn weer lu jiitu ñu koy yónni ci la euh, commencé di gént gént yooyu bi euh, wax yu bi commencé ñëw nag ba léegi lum mu géntati rek wax yu lay doon ndax yonent yàlla Ibrahim ba ko yàlla joxee ndigal ngir mu rendi Ismail ci gént la ko yàlla jaarale woon ci yàlla Yuusuf gis ngeen niñ tuddee gént ca saarwa kon gént lu mat a bàyyi xel tabaaraka màgg na allahu yàlla maa wax yu ndeer wax yu bi muktasabin di lu ñuy fàggu Euh, nekkul loo xam ne da ngay góorgóorlu ba yàlla def la yonant wala nga góorgóorlu ba yàlla di la wax yu di wax ak yow comme ni mu waxee ab yonent loolu kenn mënu ko nga góor góorgóorlu am grade bu nekk ci yàlla nag waaye ak yonent moom kenn mënu koo am wala nabiyun déet ab yonent bi muttahami di kuñ euh, tuumaal ala xaybin ci lu mu indi ci fàddu loo xam ne daf ko indi ne lii yàlla moo ma ko wax wala lii mooy xew wala lii kenn waru ko caa tuumaal ndax lu mu ca wax rek dëgg la kam abraat bëri na bu wéree bu mu wéralee moom yonent bi salaa salaam wasaban feebar Euh, billam si ci laal raaxatuhu dégg nga euh, tenqam la euh, raaxatuhu tenqam la bëri na bu mu wéralee wasaban feebar billam si ci laal waaw moom yonent bi salaa sallam kam abraat bëri na bu wéralee raaxatuhu tenqam la tedd la wasaban feebar billam si ci laal gum ko laal ak feebar bu nit feebar mu laal la rek nga wér ah bokk na ci bëtu xataada ba ba mu ko mu ñëw téye bët bi wan ko yonent bi salaa sallam yonent jël bët bi delloo ko fa mu nekkoon ba nim dee moom xataada mi ngi gis dafa ab am na koo xam ne dafa jóge woon ci kaw daanu ci suuf daal di damm yenn tànk bi damm mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko rek tànk bi mel nam meloon Seydina Ali ba mu wànnantee wànnante wu metti wa Seydina Muhammad dafa ñëw laal bët yi rek mu daal di mu daal di wér te yu mel noonu du jeex mukk mukk mukk mukk mukk sallallahu alayhi tamit kon euh, moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa atlaqat bëri na bu mu boyalee araban aji jàq aji tiit mi ribqatil lamami ci tënki bàkkaar nga xam ne dafa am ay bàkkaar ba yaakaar ne yàlla du ko jéggal mu ñëw rek daal di tuub euh, euh, ci yéen bi salaa salaam yàlla mu jéggal ko yàlla mu jéggal ko lépp wax ci yu ba mu ñëwee daal ne tuub dañ koo nangul tuubam te moo rey euh, ki gën ci lislaam bi bokk ci ñi gën ci lislaam sayyidu shuhada Hamza am na ñu koy firee tamit araban saddum jinne dégg nga wa atlaxat dégg nga saddum jinne am na ñu koy firee noonu baatu arab bi euh, hakaza waaye daal firi mi gën a kii mooy ndax arab day firi al muhtaaj aji min ribqati lamami xam nga ribqa day firi buum euh, lamam tamit day firi ay bàkkaar allazina yajtanibuna kabaairal ismi wal fawaahisha illa lamam lamam mooy bakkaar yu ndaw yi wa axyati dundal na asanata at ma ashahbaa bay aji bekkoor daawatuhu ñaanam ga xataa xakat ba mu niru xurratan di pell fil asuri ci jamono yi ak duhum yee aji ñuul ah, maanaam dafa am bekkoor bu amoon euh, yéex a taw ñàkk taw bu amoon euh, dégg nga bu metti sax ci madinatul munawwara ñu ñëw nag wax ko ko benn arab yi ñëw wax ko ko suñ jur gi amatuñ lu ñuy naan tool yi mi ngi commencé booy euh, ñaanal yow kii nga xam ne yow la yàlla tànn mu daal di ñaan moom yónni bi sallallahu alayhi wasallam ñaanee rek taw bi bëree bëree bëri ba commencé nag yàq dëkk ba jur yi commencé di lab tool yi commencé di yàqu teg na semaine teg la ne semaine nee nañ boo xam ne euh, taw bi arrêté wul arab yi bi ñëwaat daan ne ko ah suñ jut gaa ngi lab suñ tool yaa ngi yàqu ndax ndox bu bëree ci euh, tool yi day yàqu kon nag ñaanaatal mu ñaan daan yàlla dégg nga xawaalay naa laa alay naa waaw taw ko ci suñuy côté waaye bu ko taw ci suñu suñu kaw léegi nag xur yee nag des di taw ak àll ba fañ soxlaa ndox ma waaye biir dëkk bi moom yàlla épargner ko nee na mu daal di ñaan euh, pelle wax na fi pelle pelle mooy weex-weex buy nekk ci euh, jëwu fas weex-weex boobu la ñuy tuddee lan pelle léegi nag euh, ci biir lëndëm benn lampe bu fa tàkk ñu koy niraleeg pelle maanaa dafa bekkoor bi dafa demoon ba matale ñu nekk ci naqar ak lëndam jafe-jafe la niraleeg lëndëm léegi nag ba yaakaar ñëwee te mooy taw ba mooy leer gi nga xam ne tàkk na Euh, leeru yaakaar ga euh, leeru euh, dégg nga espoir ba nee na bi aarijin ci niir boo xam ne jaada tabe na niir wu tabe mooy niir wu taw bu bëri aw xilta wala nga jortoo ba nga jortoo sax albitaaxa xurya bihaa ci moom dégg nga ban am yool minal yemmi bu jógee ci géej nga yaakaar ne sax géej moo fa nekk géej gi moo moo déplacé wu ñëw daal di installé wu foofu aw saylan wala nga yaakaar ne am yool la minal arim ara minal arimi bu jógee ci xur waaw wala xurwa moo dem ba fees ñëw daal di inondé dëkk bi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko yàlla ay kéemaanam nag ëpp na lii fuuf da cee lim lii rek waaye ay kéemtaanam euh, du jeex ba ca gën a màgg ci ay mujisaatam nag ay miracle mooy alquran bi nga xam ne du fi jóge ba mukk kon lii moo nekkoon buntu euh, juróomeel bi euh, lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci ñi ñu ko doon waxtaane suñ gàtt xam-xam ak ñàkk fasaaxa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu